Ahmed Cissé yëkkati na ko jëmale ko ci alxuraan mouvement pour la citoyenneté africain ak kuréel gi nga xam ne dañuy xeex ngir gën a ñoŋal njàng meek njàngale mi ak it axtu suñuy valeur ñoo bokk déposé niki aljuma ji à plainte ci taabalu procureur bi ñoom ñaari organisation boobee di ñaawlu kàddu yi nga xam ne moom waaraatekat bi Ahmed Cissé yëkkati na ko mu jëm ci alxuraan. mooy gis nañ ne euh, koo xamante ni ku ñàkk teggin ku ñàkk worma euh, Euh, ku ku ku ñàkk diine donte day woote ne moom nitu diine la parce que ñun lu ñu am lu gën a sacré ëppul alxuraanil karim bu fekkente ne jël nga alxuraanil karim nga ne lii ay léeb la ak ay léppoon la yàlla waxul dëgg mais wax yooyu dafa jógi day wax ñi nga xam ne ñoo bind bile plainte dal dina ñaaw lu it ne lu tax procureur jëlul bile dossier waaye tamit noppi bi ñu seetlu ci sénégalais yi rawatina xalif généraux yi. ñu ñaawlu tamit le fait que boobu ba léegi dëgg ñu xalifa yi wax ci du Tiwaawoon du du du Touba du Kaolack du Laayeen du Njaasaan du kenn. bu bu waxoon tey Cheikh Seydil Hadji Malick Sy lu mu bind ci xilaasu zahab di tagg Seydina Muhammad bu waxoon Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Rasoul lu mu bind ci masaalikul jinaan ak ñoom Cheikh Abdallahi Niass ñoom Cheikh Ibrahima Niass ñoom bu Kunta Ndiassane ne ñii lu ñu bind lépp daara amu ci ay léebu nag léppoon la dëkk bi di yëngatu. ñiy yëngu ci ñaari collectif yi li ñu bëgg mooy ñu teg ay daan yu tolloog tuuma gi mu teg moom Ahmed Cissé te nag xeex bi fas ñu ci yéene dellu ginnaaw benn yoon ñu fàttali rek ne waaraatekat Gambien bi dafa yëkkati ay kàddu yuy weddi alxuraan ak kàddu suñu boroom moo tax yile kàddu nag choqué na bu baax a baax sénégalais yu bari.